dëgg fa neex yàlla suñu kër sama kër papa génnewu ñu dara seen lépp lépp lépp lépp ak kër gi ñu dendal ak kër ga gële yëpp a fees dell dell del lii daal lañ lii lañ nekkee wax dëgg fa ne chaque jour nii la xale góor ñooy nekk jàmbaar takk seen takk seen i moto pompe buy taw ñu nekk si taw bi di génne wax dëgg xale góor yi koñ moom amuñu seen fay vraiment ma ne maire bi maa koy soog a gis tay bu dëgg neexee rek te ñu koy wax maa ngi koy soog jis tay wax dëgg fa neex non nga leen di gis wala yu demee nii nga leen fii gis waaye bu dul loolu man gisuma leen fi wax dëgg fa neex yàlla te ñun tamit ci réew mi lañ bokk lii neexul li neexul bu doon suñu sago ñu toog suñu biiri kër muy taw ñun suñu xel di daal mais buy taw doo sañ a toog sa biir néeg dangay ngay génn taxaw lii tamit neexul ba bañ ñun bañuñu be kenn ku falu ànd nañoo geew mais nañ ñu dimbali Grand Médine moom la ñu am lii metti na trop xale yu góor yi ñooy def suy taw duñu toog seen biir kër yi dañuy génn taxaw ak seen moto pompe mais tey ndox mi ëpp na leen doole ba mu def li fi yàqu bari na trop ñetti kër yi yëpp a yàqu fetti na lool waaw waaw mais ñu ngi koy santé yàlla comme yàlla dogal na dégguñu kenn si kuy gaañ walla ku ci am ku ci ku ci dee ñu ngi koy santé tam yàlla aussi di leen di rafetlu tamit aussi seen liggéey yéen tamit. trop depuis ba léegi ñu ngi nekk ci xam nga bu xiinee sax ñu tiit ndax et kii bi vraiment ndox bi sonal nañu trop tali ba fees na ba mujjee wëlbatiku ci koñ yi. te loolu musiba lay jur kër yi fi mu toll dañoo tagg saako saaku saaku ba mënatuñ ko nañ si dimbali le plus te yàlla tax rek waaw jërëjëf. gis nañ ko ci suba mu ñëw fi am fi taxawaay du xool nit ñi si yan jafe-jafe lañ nekk donc nit ki tamit bu defee dara da nga naan ko jërëjëf ci loolu c'est le maire moom moo jiite ñëpp mënoon na def ni yenn maire yoo xam ne bu mën na amee ragal ragal nañ génn seeni i seeni ak bu ñëwee ba fii di masaw ñu ne nañ am fulla gu toll ni lépp lu ñu fi yàqule wala lépp loo xam ne pertement la nañ am fulla jàkkaarloo moom wax ko ko mais ñun li ñu jàpp mooy ñun dëkkandoo yi te ñu lorluwe nañu xoolagum suñu dëkkandoo yi nga xam ne amuñu ñi nga xam ne amuñu fu ñu fanaan ñi nga xam ne amuñu fu ñu fanaan ñi nga xam ne dañu yàqule ñu jéem a lijjën seen situation ñu amagum fu ñu tëdd suba parce que ndox mi bu soobaatee ci guddi gi wóorul situation yi mais moom it lépp lu ci war si soutien ak taxawaay moom mu def ko li nga xam ne moom la waree mais ñun ñoo fi dëkk ñun ñoo lorlu le ñun ñoo yàqule donc nañ taxaw ci loolu d'abord parce que sànq Papa Ndiaye dafa interpellé nañu ñu ngi nga xam ne amuñu fu ñu fanaan nañ si jublu ñun mënuñu joxe classe ñun mënuñu joxe kër yow yaay autorité bi ñëw nga ba fii déplacé wu ñu wax la suñu problème lan la loo ci mën a faj tamit nga faj ko si. saa bu amee ñu gis ko mu ñëw waaye solution yi la ñu gisagul solution yi la ñu gisagul chaque année moom day ñëw ànd ak ñun mais solution yi moom gisaguñ ko. ah ñun autorité ah man autorité bi gis naa monsieur le maire xaw ma xamaa ak yenn autorité ñoo fi am. anay responsable yi ñun gisuñu ay responsable ñun daal monsieur le maire lañ gisagum waaw monsieur le maire daal waaw bu ñu mënee jàppale daal monsieur le maire daal le plus le plus tôt possible nañu jàppale lii moom dañoo sonn parce que mënul a durer toute une éternité lii moom mënul continuer wax dëgg yàlla moom metti na torop jàppaleen ci. ndox mi daf leen nangu ba dañoo mujj dajji euh, adduwaas yi pour génn nit ñi ci kaw te loolu bu ñu amul woon pafte ñooñu moom dañ doon doye parce que am na ñoo xam ne commencé woon nañ juuxu fi ñu toll nii gis ngeen kër gii ñu jàkkaar lool. dafa jël ñi nga xamante ni ñooy dëkkandoo yi nga xamante ni amuñu fuñ fanaan te ndox mi nangu na seen kër mu jël leen jël leen en charge di leen lii moom dañ koy dund sax at at bu jot dañ koy dund te dafa met ren nag daf ci raw parce que gis ngeen miir yi niñ daanoo ba nga xamante ne am na ay néeg yu daanu ci biir kër yi te gis ngeen lii fii ma taxaw nii rek ndox mi dafa feesoon dell gis ngeen nu mu nit ki tamit bu fekkee da nga nekk ak sa kilifa Euh, nga nga def effort yuuxoo ko mais buñ ñëwaatee tamit da nga war a jéem a xool noonu naxanteeg moom ba moom mi la gën a jege autorité yi mu xool naka la ñuy amee solution pour Grand Médine pour lii deñ fi. an famille daal di dem ci moom ne nag na jéem a def effort ci koñ bi si la ñu dig carburant carburant boobu nag tey ci suba la ñëw indi deux cent mille muy deux cent litres yi nga xamante ni digoon na ko waa Magadane famille. parce que waa Magadane famille dañoo préparer ndox bi ba nga xam ne mais yàlla ak mbiram ak. mais daal tey ñëw bi. ñëw masawu la ak ñëw méttidu li nga xam ne moo am parce que boo nekkee ay askan ñu am loraange ci dara da ngay ñëw masawu leen donc dañu ñëw masawu leen parce que jàpp nañu ni lii ñu daal ci askan wi la dal moo tax nag ñu bëgg ñëpp dal ñu def visite bi ci jàmm fi ñu war a dugg ñu dugg fi def recensement yi responsable yëpp a ngi fi. Grand Médine dafa am ay projet yu mag yoo xam ne état bi daf ko naal bi ci ëpp mooy BRT bi. suñu góorgóorlu suñu góorgóorloo BRT bi mën na jël assainissement bi Ageroute aussi ñu ngi liggéey ci assainissement bi ONAS ñu ngi liggéey ci assainissement bi te gis ngeen ni bi nawet bi demee ba démarré ba léegi chaque fois bu tawee 24 heures ñu dindi ndox bi tey jii nag li am mooy ndox mi ñu doon dindi dañ koy sànni ki tali bi tali bi yóbbu ko ci ci ci réceptacle bi mais tey mécanisme bi doxul parce que ndox mi dafa bëre donc li ñuy jaa ñaan askan wi mooy fi ñu toll nii il faut ñun ñëpp ñu boole suñu doole ñu fédéré ko il faut ñoom ñun ñëpp ñu dégluwante il faut ñun aussi ñu am mat su fekkee dara dal na ci askan bi ñu mën a xool nu ñuy def ba regle ko moo tax may appele à la responsabilité ñi nga xam ne mënuñu fanaan ci kër yi nañu dem ci école bi ñi nga xam ne jote nañu pour dem ci école bi ñu dem ci école bi mais bu fekkee am na ñeneen ñoo xam ne bu fekkee am na ñeneen ñoo xamante ne aussi voisins yi mën nañu jël ñu jël leen ñun en tant que mairie dinañu def recensement exhaustif danañ ko aussi jàttale sous préfet danañ ko jàttale préfet ak gouverneur ak képp koo xam ne war na ko jot ci administration bi mais mairie bi moom ci wàllam à partir de demain matin dina jël ci gafa li mu yore ci wàllu dund teg ko à votre disposition pour le moment loolu la ñu décidé. léegi nag beneen appel bi ñuy lancé état bi moo di Grand Médine dañoo sonn ci assainissement. lolu moy sen cri de cœur assainissement assainissement du compétence transférée assainissement compétence régalienne la ñu ngi woo état bi projet bi nga xamné moy mooy BRT bi té wa CETUD diko fi def ñu koy ñaan bala projet bi di yegg na assainissement bi yegg. assainissement comme nim ko waxé ni damay rafet le fait que mu koy crier té lolu lañ lay sante monsieur le maire foo ko mënta jooyee nga joy ko fa BRT bi dañ ci am yaakaar dé té buñu ñu rek amatuñ benn yaakaar. te ñun ñëpp ngemb nañu ànd ak maire ci liggéey bi ak doomu Grand Médine yëpp parce que bu ñëwee jàpp lañ pour assainissement ñëpp dañ ci war a jàpp pour que na lu ñu soxla ñu assainir ko fexe ba ndox yi di yàq fi def dégâts dootu fi am loolu daal moo nekk problème bi nga xam ne mooy suñu problème ku jóg nag pour taxaw ñu xeex assainissement ñu ànd ak yow ngi bi parce que bu ci jàpp ñu jàpp ci kon mu sotti kon ñu ñëpp nañu ànd jàpp ci pour que loolu mën a sotti mais li teew daal ba teew mooy ut fu ñu fanaani ba subaak jàmm bu ñu xëyee ñu ñëw sur le terrain xool lu ñu ci mën a def ci ndimbalam ak ndimbalu état bi ñu def ko loolu daal laay dénk askanu koñ bi yëpp ak askan ñi nga xam ne ñoo yàqule ok